thank you salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di leen ne la ñuy ànd yéen chaque jour seen émission bi doorati na comme ni ñu koy defee mu nekk Face à Ria tey na ñu ngi biir Westfalia ñu seet si suñu mag suñu frère mu nekk xam ne kenn dootu ko présenté si si aar bi ndax mu ngi ciy def wàllam mu ngi ciy def lu naayis mu nekk koo xam ne surprise la nag ci yéen ndax moom sama xarit la sama mag la borom baax la ba pare bàyyi faal la mu ku baax ku gën tey moom lañ seet fii ci këram ñuy waxtaanam moom nag ci bari si bi ci aar bi moom la ñuy waxtaanee maa ngi lay soxna Ria ñu lay fay di la ziar di la wax bienvenue waaw di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tamit ngeen ñaanal ñu ko waaw di leen déglu rek di yaatal waxtaan wi. yaatal am na solo mais dootu nga bëri tiitar. déedéet ko gis. damay soog a yeewu nag nu mu la. Euh, dañ la xeer yi teel na nag xeer yi moom na trop salaamaaleykum maaleykum salaam nañ waxtaan ba ci kanam rek. tey de du la may dara ndax dama la xiifoon nag. ñaanu ma ah kon baax na tey euh, Fassaaria émission bu bees la moom lañ la euh, seet tey mais dafa am bu ñu waxtaanee ba ci biir dafa am beneen rubrique bu tudd lu ciy dëgg boo xam ne baat tontu la rek mais balaa loolu Arma ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté mais wax ñu tuuti rek kuy Arma parce que yàgg na ci aar bi macha allah yaa ngi ciy def lu nice lu am solo. waaw Arma benn mbokk taalibe rek bi jaayante di bay waaram. di daw lu mu dundalee njabootam. comme comme ni ko ñëpp di defee j'espère. waaw man moom wax dëgg yàlla bon fecckat laa comme yeneen fecckat yi. te suñu borom dimbali na ma baaw ma xaar ma yàlla ak benn fecckat. waaw amul kenn koo xam ne mës nañ koo dégg ak Arma. amul lu ñaaw lu ñu mës dégg ni Arma wax na ko. loolu moom maa ngi ci sant sëñ Tuubaa wér nax dama ci dugg pour. pour pour liggéey kon dama ciy def li ma ci war a def ma nuppee maa ngi sama kër surtout euh, aar bi metti na trop. am na yenn parents yoo xam ne du ñu accepté seen doom yi dugg ci est-ce que yow metti woon na pour nga dugg ci waaw tout de est dur yow ba ngay dugg ci lii du ñëpp a d'accord. wolof euh, àdduna moo tëddee noonu. Mm-hmm. lépp looy dugg dina am ñu d'accord am ñu bañ. ba ci tey Sadio Mané mi nga xam ni eh, eh, il est connu partout dans le monde ba muy dugg seen waa kër bañoon nañ nit lépp looy dugg mu am ñu bañ mu am ñu nangu yooyu yaa ci wane li nga xamante ni ñi nga ñi nga ñi nga ñi la war a fekk si dinañ la fekk si ñi la war a doole dinañ la doole muy jom fulla ak ñàmbaar mm-hmm. boo ko jiitalee ci loo mënti dugg dinañ la ci fekk si waaw ci loo mënti dugg nag. Mm-hmm. waaw même sàcc bi sax bu ji amee ful la ci li muy def. ñenn ñi nañ dinañ ko nangul ab sàccam. noonu la def. Oh, euh, ñu gis ni nga dugg ci aar bi aar bi euh, fan nga fan nga fan nga dooree. parce que nit bu nekk dafa am fu fu mu jógee ba tey mu egg fu muy egg. tey tey Arma fan la dooree ba nit ñi xàmmee ko ba waaw man nag fi ma xaw fi ma fi ma xale jaar xaw na bëri tuuti parce que. man noonu lay dundee su ma nekkee ci mbir bu ma ci toogee ab diir gisuma ci yëguma ci sama bopp damay cànc dem dem xool leneen. Mhm. noonu laay doxee te ba may door fecc man j'étais pas j'étais pas fait pour être danseur man opté wu moon pour nekk fecckat. non élève laa woon dama doon jàng école en plus dama doon football football sax laa gënoon concentré wu wax dëgg yàlla mais xam nga. nul ne peut échapper à son destin suñu borom moom li mu tracé rek ci ngay jaar may feccantu di jàng école ki ma gën a dugal ci fecc ki gën a yokk tax ma dugal ci fecc sama benn xarit la bu ñuy woowee Sophia Sène mooy France boobu maak moom ñoo sax France d'ailleurs euh, boobu maa ngi jàngee Oméga di def classe troisième lycée war a def BFM mbaa ci ubbi benn organiser benn groupe fee ci centre centre bi nekk unité 4 Parcelles Assainies Sofia ñëw ne ma mbaajo ubbi na groupe nii naana kaay kaay ja ne nga ne foofu di répété lii laa ma ne ko non man du ma fecckat mm-hmm. mun ma xam naa ne doo fecckat mais kaay rek nga jàpp forme affaire yooyu noonu comme gis naa yaa ngi ci foo te te neex na la noonu noonu ma commencé ñu taxawal groupe mbaajo bi ba mu dëgër après kalang kalang ma xool xam ne yëfi jigéen la yooyu mm-hmm. pas fecc yëfi jigéen la mais groupe mbaajo bi xam nga jigéen moom dafay bëri ay benke ñenkeeg yu sew ma bàyyi jugee bu ma jugee ci loolu ci duggantu ay simb mënta ñàkk simb naa euh, jaar ci ay simbukat ay Papa Ndiaye Rabo ay caat Medina ah ay yeneen ak yeneen bàyyi ci loolu suñu borom boolema ak salaam. mu nekk ci salaam tag suñu borom boolewaat mag Pa saa Sonko mi nga xam tey tey lu bëri moo ko def ci man wax dëgg yàlla ndax bu ñu ma xoolee may fecc bala wala may fecc ay danse contemporaine nag leneen leneen ay jiw laa ko soose. c'est grace à lui ndax olof nee na bu lëg lekkee alam na ko gërëmee cooy. ñu ànd boobu ba léegi dara ñaawul wax dëgg yàlla te mosumaa jóge ci moom it ba tey bu ma soxlaa may raw ami bàkki am ah suñu borom boole ma ak salaam ñi dem ba waaw salaam tamit dara ñaawul ba ba léegi ndax saa yu ma soxlaa tamit. ma ma disponible naa ci côté ba jëmmi jamono tey may ànd ak uh, Waly bari euh, tey tey bu ñu siiwoo dañuy fàtte ku leen tette wala ku leen dooleel ñu gis ni que Pa Moussa moom defar na ñu bari ci musique euh, ci fecc bi jàppale na ñu bari mais doo noo gisee kóllëre artistes yi ak fecckat yi des fois nga gis nit euh, jël léppam jox la ko nga dem ba yëg succès ba commencé di concurrence ak moom. waaw gis nga booy wër ku ñàkk kóllëre ba jàpp artiste dootoo jàpp keneen artiste bokk na ci ñu gën a ñàkk kóllëre ci àdduna parce ñoo gaaw a beewu gaaw a fàtte te gis nga mbooloo day defloo nit loo xam ne tey du ko sax xam bi nga ma xamee boobu ba léegi nii nga ma xamee dara mosu cee changé amul nag ku ñu dimbalee am xëy na nag li ma jël sëñ bi teg ci kanam jël sëñ bi teg ci ginnaaw lu moo waral lu bëri mënuma maa intéressé man Baye Fall la moom laa bëgg a doon sax wax yàlla ndax Baye Fall xam naa ni yombut waaye tamit ba keroog may faatu sama dund gi du ma ko mës a soppi barki Cheikh Ibrahima Paa Moussa jàppale na fi ñu dul jeex. Mm-hmm. yoo ba mu doon lim tey fii lay fanaan te ñooñu tey amaana ñoo xam am na ci ñoo xam ne bu ñu jàkkaarloo moom ay tànki defante la ñu indi yooyu li ma doon ma kaas keroog ci télé dañ ma invité 2S ma gis nga nit waroo ko xam nga yenn saa yi dina réagir ci loo xam ne xamul nu mu demee mm-hmm. man boo ma déggee may kaas da nga naan kii dafa waaw dafa naqari dara wala kaasuma loolu man li may kaas mooy ak li ma bëgg mooy lépp doon benn xëy na nag yenn saa yi wax bi ni ñu koy expliquer moo dul moo dul yomb ba nit yi mën la comprendre mais lépp lu ma ci jublu barki Seydina Mohamed pour lépp doon benn la waaw man damaa bëgg nit kuy cëral doomu aadama ndax ku la jàngal mënoo koo fay ku la teg ci yoon mënoo koo fay am na ñoo xam ne tey ñoo yor seen kër yor seeni njaboot te ci moom la suñu borom jaarale seen wërsëg ba ñu tukki mën a lijjanti seen bopp. kon ñooñu kook dañ koo war a fonk. waaw man chaque jour foofu lay kaase. mais du caagi nu ko damay damay xaajale wala seen man sama kër laa ne Pa Moussa yoru sama kër waaye li tax tey ba ma mën a dem ba yor sama kër jàpp na ci. foofu laay waxe koo xam nga kooku mënu ma ko kaasal quoi que ce ndax moo ngi këram di gérer maa ngi sama ruq di gérer mais dañ ñuy ñuy bañ di gaaw a fàtte ndax fii dara. dara yàggu fi te fàtte xaju fi lépp démb la wax dëgg yàlla te àndoon nañ fi ñii di ko fombali daal ak ñii di ko demal ay yónne kon nag tey bu ñu dem ba mënal seen bopp bëgg ko def moroom wala ñu koy diir mbagg man foofu laay waxee chaque jour c'est pas waxuma kese pour Pa Moussa c'est valable pour tous les artistes boo xoolee ci waykat yi noonu lay demee ci fecckat yi ci moo tax ma ne la booy jàpp ku ku gaaw a soof gaaw a beew boo koy wër demal ci artistes yi di nga ko di nga ci jàpp daal wax dëgg yàlla. Euh, ñu gis nga nga si salaam ñu gis la nga nekk léegi si waali mu nekk ànd bu yàgg trop macha allah nan nga ñëwee ci waali. waaw waali li may wax dëgg chaque jour rek waali moom yàlla moo ñu boole ah yàlla ñu boole ba pare Cheikh Ibra David dañoo boole. Hmm. kon lépp day wëlbatiku ci yàlla ñu boole ndax waali maamam bi jur coon Seck. Hmm. muy Ablaye Seck njaareem ak sama maam la woon bi jur sama papa. Maysa Ndiaye Gawlo démb rek ci mujj ñu ngi ci waxtaan barki Cheikh Ibrahima démb ci guddi. Euh, Cheikh Seck bu musaan fayeku moom dafa faawoon sama maam ndax sama maam da daan way sa maam moo mënoon way. Thione Seck euh, euh, Ablaye Seck bu musaan fayeku maami waale balaa muy dem këram. di yóbbu ration si sama maam lay dem yóbbu fa ration ba ba pare billaahi wallaahi barki borom Tuubaa Thione ak sama pap sama papa nettali na nee na ñoom ñaar bokk nañ sax wanet sangu xam nga loolu moom du sax ay jër ma koy nettali waaye dafa yoo xam ne faaw ñu koy leeral den saay kon tey mag waal bu ñu àndee kenn warta wax lu ndax dafa jiitu suñu judd suñu borom boole ñu mu mate palaasam xam boppam wax dëgg yàlla nekk xale boo xam ni jàmbaar la ndax moo ngi def loo xam ni wax dëgg yàlla am na ñu ko fi jiitu am na ñu ko ko fi ëppale woon fuuf te mosuñu koo xalaat ndokk hmm? nag boo suñu borom jaaralee ci yoon woowu nga xamante ni xamul xalaatul li deful lu dul dimbaliwaate wax dëgg yàlla lépp luñ ko waaye waxal ci def lu baaxam lañ ko ko waxale day def lu baax ba lu bon fekk ko ci te sax du lu bon waaye ndax wax moom mënta ñàkk ci réew mi fii moom kenn kenn bàyyiwut kenn sëgam sëñ waa mi lan bàyyiwul ba léegi bàyyiwuñu ko waxuma la kon lu waale la bàyyi. Ah, ñu gis ni que macha allah mu am ñu bari ñu nekk ci biir parce que du yow kese am na fecckat yu fa nekk ku mel ni Eumeudi ku mel ni Amethiou ñu bari ñu fa nekk euh, yan ñooñu noonu ñëpp lan moo nekk sa relation. waaw gis nga yàlla su. fecc même même cher. waaw ah, non Amethiou fecc maag Eumeudi ñooy fecc. maa Amady ñooy fecc Ahmed ce n'est c'était un danseur à l'époque mais ce n'est plus un danseur parce que moom boo xoolee sax ci kii bi la gën a focaliser wu ci micro bi moom waaw moom day wax après moom wax dëgg yàlla te xam naa ne tamit lu bëri mën maa ko waral ndax yàlla dafa dafa dafa jël yonent bi def gën di mbindéef jël yonent yàlla Ibrahima def xaritam man ak Amady mooy sama xarit mooy sama xarit te wax dëgg. parce que gis nga loolu falaa laa njëkkee pour bañ nga delloo dama ne la yàlla ci boppam misaak daa jël yonent Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko muy gën di minef mm-hmm. mais teew dafa jël yonent yàlla Ibrahima def ko muy xaritam kon xam nga ni yàlla njëkk a njëkk a jéng. waaw. di on passe plus de temps ensemble. li ñu nekk ci kaw seen boo xoolee duñ euh, fekku ci amet te lu bari maa moom ñoo koy li dañ koy liggéeyandoo bu amee ay chorégraphe tak moom daal lu mu am moom wax dëgg yàlla amari man la ci jiital ci wàllu fecc ak chorégraphe lépp day may woo caan lii wak lii wak laa ba pare dañoo am benn complicité boo xam ni macha allah yàlla bu ci cat dugg mu nekk grand boo xam ni il est ah, te gis nga nit moom boo fekkee nit nga ku la ku la jàppee juróomi loxo ak ku la jàppee ñaari baaraam mm-hmm. war nga ko mën a xàmmee te olof Njaay nee na nam la def goo gis na nga ko defa tax xëy na nim ma jàppee moo waral ma xam ni kii am na fu ma toll ci moom kon kay aw ma mënuma lu dul delloo ko wecc du rek foofu ci moom ñu allah da ngeen